قلبك asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp yóbbu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fii te wér ak njabootu Serigne Touba gépp di siyaar bu baax ak nuyu sëñ Moulay Mbacke mii xalifa sëñ Balla Coro ak njaboot gépp di fa nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ Maam Balla di xalifa sëñ Abdourahmane mu wàcc ci njaboot gépp kàddu yi nag kàddu yi seere lay doon seere si nag moom ci sëñ Abdou dana nuru lu yomb waaye dana jafe ñu ñu tàmbalee ko bi juróom soxna bu Ndiaye di di di ñëw kër sëñ Balla Coro sëriñ bee ko fa yóbbu da koo boole ak Cheikh Ibra Cheikh Ibra Fall ak sëñ Daaru Assane Ndiaye ne leen dem leen ngeen yóbbu ko ngeen sàkku jil ko barke fam jëm kon euh, euh, euh, moom da ngay xam ne kon sëriñ bee ko waajal ndax ku toll ne Cheikh Ibra ak sëñ Daaru Assane niñ toll ci yoon wi sëñ bi yabal leen ñoom ñaar na leen dem leen ngeen sàkku jël ko barke fa mu jëm muy waajuram wu jigéen moo tax bi mu gën a àddina euh, sëñ Bay wax na ko sëriñ bi moo ko tuddal boppam tudde ko Abdourahman Ibn Awf bi mu tolloo ci jàng moo ko dalal jàng jox ko Baye Assane Ndiaye mu àggaleel ko am na naar bu ko àggaleel am njàngam tamit ba mu ba mu bind kaamil bi mokkalee ba mokkal gi rafet booba ku musaana mokkal am na euh, euh, luñ daan wax ab ab sart la boo xamante ni dañ koo fonkoon comme bu dee jamono léegi ji boo wàccee niñ lay toggale ay laax ak di la berndeel boo musaana mokkal day am euh, looy joxe moom nag ba mokkalee naar bi ko àggaleel wax ko sëriñ bi sëriñ bi eh, daf ko wax eh, bi ñu ko laajee sart bi ñu ko war a joxeel sëriñ daf ko wax ne ko Abdourahman maa koy joxeel ndax moom sama doom la lañ ko waroon a joxeel nag sëriñ bee ko joxeel ko ko moom nga xam sëriñ Balla joxeelu ko sëriñ bee ko joxeel te loolu la ko wax Abdourahman sama dooma kon maa ko koy joxeel mu toll ci njàngum xam-xam njàngum xam-xam mi sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana aw na ci ay loxoom ak sëriñ Mat Dem ak sëñ abibu sëñ abibu ginnaaw bi ñu yóbbu ko Gédé ci sëñ bu Buso sëñ Mbàkke joxaat ko sëñ Asan sëñ Asan it jàngal la ko ginnaaw bi mu dem mu ginnaaw bi mu dem Muritani moo ak sëñ Seex Faanma ak sëñ Mbàkke Madina nekkandoo woon nañ fa waaye moom euh, def na fa juróomi at loolu ñibbisi nga xam ne wàllu xam-xam géeju woon na ci lool ma nga jànge ca Murtani dëkk bu ñuy wax Garak Abdourahman ibnu Abula moo ko doon jàngal ñoom ñu naare naw nañ ko lool ca Murtani te te xam ko am na wàcc waay bu mag a mag a mag ngir noom fa nekkee woon ak euh, nangu gum nangoon a jàng ak euh, euh, am jëm amoon xam-xam tax fonkoon nañ ko lool sax mu doonoon ku tabe doon ku yaatu doon ku amuk taalibe doon ku bëgg sëriñ Tuubaa te doon dund ak taalibe ak taalibe rekk moo ko ñoroon euh, lenn lenn lenn euh, doontoon yitteem lu may euh, dundu ak taalibe rek ak di ci tàggat ak njabootam ak ay taalibeem ak tabeem moom ñëpp xam nañ ko lu mosaana yor da koy joxe fonkoon ku fonkoon joxe addee Sëñ Tuubaa la da ko wutaloon ay àpp yoo xamante ni fu jote lu dajale rek da koy yóbbu loolu bokkut ak lii ñëwaat ci diggante bi muy yóbbu di ko jox ki fi nekkal sëriñ bi loolu waxtu wu nekk am na lim boo xam ne da ko daan jël di ko yóbbu te bokkut ak eh, eh, geneen njabootu Sëñ Tuubaa ji fi nekk tamit eh, maanaam addee jim leen daan yónnee mu doonoon ku jaxasoo ak njabootu sëñ Tuubaa gim fi jamonoon tel ku mel ne sëñ Abdul Ahad àgg jaxasoo woon nañ jaxasoo goo xam ne jaxasoo gu xóot xóot gis naa ay leetar yu baree baree baree bari yu ko sëñ Abdul bind yoo xam ne boo xoolee waxin wa rek dangay xam ne maanaam euh, kum fonk lay waxal te te te seenu jaxasoo daal sori woon na lool nga dem ci sëriñ bu naka noonu boo dikkee ci sëriñ Fallou naka noonu ba ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ci des gépp noonu la meloon ak ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na jaxasoo gum amoon ak yow ak relation bu mu seqoon ak yow te ku ne xam na ne bi sëriñ bi làqoo la ko sëñ Balla Coro jox sëñ Modou Moustapha ngir mu àggale fa sëñ Modou Moustapha ko jox sëñ Abibou bi muy nekk sëñ Abibu moo euh, euh, euh, si si sëñ Saaliw ak sëñ Suhaybu nekkandoon nañ fa ci am njàng ginnaaw bi muy dem Gédé itam sëñ Moodu Mustafaa ko fa yóbbu ñun du mee sëñ jox ko sëñ Asan naka noonu Muritani tamit sëñ Moodu Mustafaa ko fa yóbbu ginnaaw bi sëñ Moodu Mustafaa làqoo nag la ko sëñ Balla jël féetale ko ak sëñ mu nekk ak sëriñ Fallou moom itam relation yi ñu amoon gis naa ci ay leetar yu bare bare bare bare yoo xam ne eh, sëñ Fallou ko ko bind muy leetar yu yu xóotu xóotu xóot sax yoo xam ne moom seenu jaxasoo eh, ñépp xamoon nañ ko ginnaaw bi fi sëñ Fallou eh, jógee la dem nag jokk ci sëñ Abdul Ahad ndax sëñ Balla laata muy làqu wax nga ko léegi dafa batale woon ne ku fi nekkal sëriñ Tuubaa rek na ngeen ko topp mu am ak jagle ndax wax nga wax nañ la waajtaayam ndax bi waajuram di eh, sëriñ bi di koy yóbbu wax naa la ne la Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Daaru Asan lañ ko boole ngir ñu sàkkal ko barke barke boobu nag topp na ko ndax ku ne xam ne ne liggéeyal na sëñ Tuubaa ci jumaa ji waaye loola du asaar ndax am na cosaan cosaan la mooy jumaa ji sëñ bi njëkk a digle fii ci Touba maam Thierno la woowoon sëñ Balla Coro sëñ Masamba Mbàkke sëñ Fallu sëñ Modou Moustapha wax ne maam Thierno nay kilifa liggéey bi sëñ Fallu yaa sëñ sëñ Masamba Mbàkke dem leen ca suuf sa sëñ la Coro yaa ak Cheikh Moustapha doon leen ndaw maam Thierno jotoon nañ ko tàmbali fii ci jullikaayu it bi nekk wet googu ci penk bi foofu lañ ko tàmbale woon gas foofu la jumaa ju njëkk ja nekkoon ginnaaw bi biñ demee ba ab am diir lañ ca taxaw am këyit yuñ doon toppatoo ginnaaw bi sëñ bi làqu jot nañ caa dajale si ab xaalis ndax ñaar fukk ak juróom-ñett yi sëñ bi doon jote dajale jumaa ji ci la jëmoon ginnaaw bi sëñ bi làqu nag bañ indi ko def ko fii ñu ko def ci la Cheikh Moustapha nag wax ne kon jumaa ji nañ ko toxal mu dem nee ci ginnaaw ndax bu nekkee fii day nekk ci kër bu sëriñ bi bi ñu demee Cheikh Moustapha taxawul liggéey ak jumaa ji euh, ba àggale ko fi mu àgg yàlla dogal mu ji boroomam def liggéey bu mat suñ fàllu ñëw bi suñ fàllu ñëwee jëm suuf si mu woolu si Abdourahmane sas ko ko mu ñëw fii diggante kër siñ Saaliw ak kër sëñ Murtala kàmb yi njëkk a gas foofu lañ ko gase mu daa defay toxal si daara jël donga ya ñëpp ñu nekk fa fekk sëñ Fallou tamit sos daara yi jumaa ji nga xam ne mag yi yoon wi seex si ñëpp kenn ku ci nekk am na dongo ya joxe ñu composé leen muy daaray jumaa ji ñëpp du mbarat mu ngi joxe woon ku ñuy wax Seex Fay ak Ibra Gueye ak Serigne Ndiaye ak Cheikh Diouf ak Saliou juuf ñoom ñi ñoo lañ joxe woon ñu nekk ci liggéeyub donga ci dongaay eh, yiñ composé woon nga xam ne yoon wi ci ñi ci ëpp joxe woon nañ ay donga muy dongay jumaa ji moom nag ay dongaam ñu ñëw fii fi kàmb yi nekk ñu def fa daara def fa ay néeg ak mbaar ñu nekk fa di gas suuf si waaw ku ne xam na ne moyen bii am amutoon ay pool la daan defarlu li mel ni pool yi ñuy kii nga xam ne daggiti bërigo lay doon ay bërigo lañ ko daan lañ daan yatt def ci ay pool yu bari ay nangami téeméer la ciy defarlu ñu indi ko ñu di ci liggéey ñu tàmbali kambi ay nuy suñ bay mbàkke jaaxal moo doonoon jëwriñu liggéey bi donc yëpp topp ci gannaawam foofu lay xëy si bis wax bis bu set Sëñ Fallu dana fa ñëw njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu ci bari daanañ fa xëy si buñ fa ñëwut bis bu setee lu ci bari daanañ fa ñëw di ko nemmi ko ci liggéey bi li ci ëpp it aw nag lañ daan rey danañ tegal ay ab ab diir boo xam ne bis bu set dañuy rey rey wenn nag togg ay añ léeg-léeg Sëñ Fallu yónnee ak gëléem nag yi moom si yëpp doo ko daan Euh, wut ak toggaag yëpp léegi-léegi nag sëñ Fallou ci boppam yónnee ab ak giléem ngir euh, xolam sedd ci liggéey bi donga yi nga xamante ni nag ñooy dongaay tërbiye yi nga xamante nii ñoom la sëñ Abdou yóbbu ñuy nekk ca kàmb ga pool yooyee ñu leen jox bis bi set ku ci nekk dañ laa sartal bu dee suba gi juróomi pool da ko danañ la ko tibbal nga yóbbu ko boo dikkee fii fi wetu teen bii ci wetu barabu euh, sëñ Abdul Xaadir bi mel na lu jëm ci kër sëñ Murtala ga xaw a jëm nii ci côté tàndarma gi foofu lañ daan jal suuf si dañ ko daan dañ daan tibb di indi foofu dañ koy jal ba mu doon jal yu kawe kawe léegi nag euh, donga yi moom suba gi juróomi pool lañ leen sartal da ngay indi sa juróomi pool door a dem boo dee dallu nga dallu boo dee yalwaane door a yalwaane looy def nga door koo def bu dee ngoon gi ñetti pool soo defee sa juróom ba noppi nag bu la soobee rek loo ca continué waat baax na waaye juróom yi moom boo xëyee am na koo xam ne mooy contrôler loolu nga xam ne juróom yi day mat nga door a noppalu buñ go buñ buñ dalloo bu ngoonee buñ gontoo kenn ku ci nekk ci donga yi da am ñetti pool door a noppalu ginnaaw biñ ko jàppoo noonu ba tuxu ca kàmb bi yële ñuy wax guy fukki sër muy kàmb yi su rey guy fukki sër lañ ko daan wax buñ tuxoo foofu nag fekk na. mujj gi la fi daan ñëw ci mbooloo bari na bare waaye koo xamante ni ni ñu eh, tege woon ab sart ci nga am juróomi pool booba moom amut foofa te it booba eh, diggante bi xaw naa ah, eh, sore tuuti dañuy tibb rek di indi saaboo boo sonnee rek noppalu te booba mbooloo mi ma fa nekkoon dafa ëpp dafa ëpp doole ñi nekkoon ay ndax mbooloo mu baree baree baree baree fa doon nekk ndax mag ñi nga xamante ni ñoo àndoon nag Euh, sëñ Abdou am na ci magi taalibe yoo xam ne comme ni nga ko waxee ab watab 46 la jëndal muy dem si àll bi di jëli mag ñi ak ndaw ñi di leen indi mag ñi bu ñëwee am na ci ñoo xam ne moom li gone yi man mënoon ko waaye dañuy ñëw baase wu ca liggéey ba nekk fa bañ yeewee ku ñuy wax ah, Baye Assane Ngom xam nañ ko ci ak Ngom Diagne ak euh, Moussa Ngom Mamadou Binta Sarr Mor Anta Fall ak kuñ daan wax eh, sëñ Baara Fall ak sëñ Mor Kasim Njaareem ak sëriñ Thiam ak El Hadj Cheikh Samb eh, eh, ak Baye Serigne Fall Ndiaye Dànq ak Baye Saliou Niang ñooñ ñooñ ay mag lañ yoo xam ne ñoom ñëpp xàmmee xàmmee nañ leen ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi mu doonoon nag luñ organisé it nag loo xam ne kàmb gi doonul na ñëpp ciy dugg te kàmb gi bala du du caagi ni dañuy ak ci gas ko rek tibb déedéet danañ gas lu xóot a xóot lu war a weesu ay ñeenti mètre ngir wàqi li féetee kaw léeg-léeg sax mu ëpp ko ndax dañuy dem ba jot suuf su rafet sax ba jot suuf su weex tàll su ko defee nag loolu ñu jëlee ci kaw lépp nag dañ koy dindi teg na le am na équipe boo xam ne loolu rek mooy seen métier dindi loolu tege na le bu ko tegee na le nag ba jot suuf su rafet sa nag ci la ñu tàmbalee tibb kàmb gi dañ daan tànn ñu am kàttan nga xam ne buñ tibbee sànni ko mu génn buñ tibbee nag. sànni ko na li mu génne ñoom foofee lañ koy jëlewaat nag di ko tibb di ko def ci palaat yi di leen yóbbu booba ñaar ñoo daan dugg nii ñaar dugg jàkkaarloo ak ñoom nga xam ne ñeent ñoo daan dugg ci kàmb daw ko ëpp àlla njaay daana dugg ak Abdou Sey ak Saliou Diouf ak Yaxqooba Mbay ak Ibra Gueye ak Modou Ndiaye Gueye ñoom ñii lañ organisé woon ñoom ñu dugg ci kàmb ñaaree dugg nii ñaar dugg jàkkaarloo ak ñoom biñ toxoo guy fukki sër nag mbooloo mi bari ñuy tibb nag direct indi amatut ni ngeen organisé woon ci juróomi pool ñetti pool ngoon déedéet boobu dañ doon jël direct indi saa bu ñu sonnee noppaloo léeg-léegi eh, liñ togg euh, euh, ñu jëfandikoo ko ba noppi yalwaani waat Assane Ngom moo moo daan jiite yalwaan ma ñu boole ko ku ñu daan wax Abdou Ndiaye ñu daanañ ko def bi ñu jógee foofu lañ ñëw kambi gaar bu mag biñ ñëwee kaam bi gaar bu mag nag bu ci nekk nag bu ñuy ba ñuy toxa fële tamit dañoo euh, toxal foofa def fa ay néeg def fa ay mbaar ak yëpp nga xam dëkk lañu fay def biñ toxoo gaar bu mag nag moom itam sori na bi ñuy dem gaar bi nag daa fekk liggéey jumaa ji cate yeggun fa waaye boobu ñett lañ leen sartaloon ci suba gi ñetti pool boo xëyee ci suba gi moom euh, boo demee danga nga tibb foofu ñu tibbal la ñetti pool dañuy tibb benn nga ñëw indi ci jal bi dem sa yoonu ñaareel ñëwaat dem sa yoonu ñetteel ñëwaat xam nga loolu dafa soree nga jóge ca gaar bu mag ba da ngay dox dem ñu tibbal la nga yanu indi sotti fii ci wetu barabu Sëñ Abdu Xaadir bi moo doonoon bi nga def ko ñetti yoon boo ko defee nag may nañ la nga noppalu boo ko ëppalee tamit baax na waaye boobu diir bu gàtt lañ ko def liggéey bu jumaa ji noppi nga xam ne boobu tamit doonoon na Euh, lu euh, raglu ndax fii jumaa ji nekk bari woon na ay garab yi néew yu fi nekkoon mu doonoon fi tamit ak nga xam ne ñax mu bari dafaa nekkoon ñax mi ñuy wax salguuf nga xam jàpp nañ fa am saamaan am na bis boo xam ne euh, am yeewu sax jàpp nañ ko fa jàpp nañ ko fa yeewu mu mag a mag a mag nga xam ne li wër foofu yu ci bëri suñ felu dafaa defoon ay teen dafaa defoon ay bàcc nga xam ci lañ daan sotti ndox mi defoon na fi sax teen Euh, baaj bii ñuy wax baaju Modou Fati sax ci la bokkan yeneen baaje moom dañ leen a dindi ginnaaw bi mu doonoon liggéey boo xam ne eh, lu lu lu lu lu organisé wu la luñ tegoon ci lu pësteefu buñ musaane tibbi ca kàmbay nag di ñëw am na soññee buñ daan def boo xam ne eh, ku ñuy wax euh, Ndenda Fay moo jiite woon équipe booba ànd koog Moussa Ngom ak Bada Mbaay ak Ale Mbay ak Samba Ndakaaru ak Papa Ngom ñoom la daan àndal ñoom ñoo yoroon wàllu soññe bi nag mu nga xam ne bu mbooloo mi yanoo seeni pool di dox ñoom ñoo leen di soññ topp ci ñoom seen soññe bu noonu la noonu nii noonu nii lañ koy organisé woon. biñ demee ba liggéeyub jumaa ji noppi muy nga xam ne euh, noonu lañ sasee woon xeer yi waa Kër Cheikh Ibra nga xam ne ñoom dañ ko daan jëli di ko indi fii ci wetu diggante daaree kaamil bi mel ne jàpp euh, jullikaay it bi foofu la daan nekk. noonu noonu lañ ko noonu lañ ko defoon nga xam ne lenn kenn ku ci nekk ci mag ñi am na lu ñu la féetali woon am ñoo xam ne toj xeer yi kenn ku nekk ak la cay sëb cër léegi nag bi liggéey bi noppee suñ fa lu am mbégte lool xolam sedd bi mu duggee bi muy wër jumaa ji bi mu noppee xolom dafa sedd ba nga xam ne mbaxane mi mu soloon da koo summi jox ko suñ xaw si jaxate ndax moom it ku amoonub cër ci jumaa ji la bañ noppee def nañ biñ ubbee jumaa ji am na bu ñu defoon boo xam sëñ Fallu nag sant fa mag ñi ñu àndoon nag moom ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñëpp mu sant leen sant leen sant gu wér a wér ba noppee nag daa di beral sëñ Abdu ak cant nag ne nag yow dama lay beral cant goo xam ne ci kanamu sëñ Tuubaa laa koy seeree ba ba ba ba nga xam ci biir wax ji sëñ Abdu dafa yuuxu dafa daanu ab jël ci biir mbooloo mi jooy fa jooy yu méttee métti bi noppee bay dugg ci biir sëñ Fallu dafa ànd ak moom bi mu duggee ci biir daal lay la summi jox ko mu doon loo xamante ni wax nga ko léegi ca la ko waxee ne ko mucc ngeen ci ay suuf yaa ku leen yaakaar ak ko aju ci yéen mu doon loo xam ne liggéeyal sëñ tubaa la te ku ne xam na ne jumaa ji li ci sëñ tubaa wax dara gënu ko assuré liggéeyal sëñ tubaa bu wir mooy jumaa ji ku la ci gën a jëf raw na la ndax ku ne xam na ne sëriñ bi wax na ne maanaam euh, euh, euh, bi ko suñu borom mayee jumaa ji jinde yi doon nañ ko fekk ci géej gi di ko ñaan ngir mu bàyyi ñu liggéey ko ba defaral ko bu bëggee sax ñu def ko melokaanu yéeme malaayika yi ñaan nañ ko ko waaye mu xam leen ne dafa amul njaboot goo xam daa bëgg ñu liggéey ci kon si ñëpp daal liñ ci mën a témoin loolu rek doy na waaye daal lépp mi ngi aju ci paasu ku bëgg Sëñ tubaa di ko bëgg suñ tubaa doon ko dund di ko dund taalibe bi maa ngi leetar yu bari yu ko sëñ Abdoulaye bind wax naa la ne nga nganu uh, googee mu doon def ca pala ba nganu uh, Senghor ga bi mu ko yónnee leetar bi uh, xamal ko ne ko ki kilifay yoon yëpp laa soxla waaye nag yow sab teewaay daa mënut ñàkk yow dañuy ànd sab teewaay mënula ñàkk kon da ngay fanaani Ndakaaru bi Sëñ duy jot ci leetar bi daa fekk mu toog di waxtaan waaye daa daal di jukk na na na nanguwuta nekk di waaj sax waaj mu yàgg ñu ne ko ah tey ngaa euh, euh, fanaan ba suba mu ne laay tuubal li nga wax ndigal ba la fekkee nga toog bul tëdd jugal dem bu la fekkee nga taxaw bul toog continuer nga dem ndigal loolu Sëñ Tuubaa di continuer dem nga xam ne Sëñ Tuubaa doon dund dund gu wér a wér a euh, kon ñu yemale ko foofu rek jaa ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu